asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu ngi leen di nuyu seen leen bu baax mbégam dama kontaan te nañ leen di ñaanal saa su ne di leen ziar ah, tey nag ñu ngi ñëwaat fi nga xam ne moom mooy eh, Zac Mbao eh, seet si Malick ah, Malick macha allah di jëwriñ eh, di Baye Fall di murit di ko bëgg Serigne Touba Khadim Rasoul ndax bu ngeen gisee photo bi nga xam ne wala nataal bi nga xam ne mu ngi ci suñu ginnaaw di borom jikko yu rafet yi muy makaarimal axlaax di Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké ah, ñu ngi leen di ziar bu baax ndax defe naa weeru nekk ñu ngi ci weeru safar gi waaye murit yi defe naa Euh, murid bu nekk fi mu toll nii boo xaree xol bi fi mu toll nii Touba moom moo ci nekk euh, di leen màggalaat bu baax a baax di bëggee waa sëykat yi équipe bi nga xam ne tey ànd nañ ñëw fi nga xam ne mooy Malick ziar si ko bëgg waxtaan ak moom ci màggal gi mais ma bëgg waxtaan ak moom ci euh, café gi ndax defe naa jaayum kafe moom defe na am na yu bëri ay secret yu bëri yoo xam ne mi ngi ci biir njaayum café mi ci ñi nga xam ne ñu ngi dëggal jubal leeral comme ni ko Cheikh Moudou Kara Mbacké Noreyni di waxee rek di leen ziar bu waa kër maam Thierno yi maa ngi nuyu di leen ziar bu baax baax maa ñu bàyyi nga nuyu mbokku internet yi ñu daal dugg ci waxtaan wi. asalaamaaleykum maa ngi leen ziar seen di ñoo ngi bi di ko ñaanal borom ko fi ba kanam kanam ay ba yéene bii mu am liggéeyal ka maamam mu defee ko lu njottam barkab seexanaa Ahmadul Xadim noonu lañ ko ñaanale xalifa général day Baay Faal ko suñu sëriñu sëriñ sëriñ Abdul Karim Mbàkke Falil ñoo ngi koy ñaanal sa bàyyi ko fi ba ba yéene bii nga xam ne maanaam moom la yéene liggéeyal maamam mu def ko lu Cheikh Mouhamad Fadel ñoo ne la ñuy siyaare sunu yaakaar tey xëllëg sëriñ sunu lépp sëriñ Gala Sindini këri Mbàkke Falil moom borom Touba ñoo ngi koy siyaar Mbàkke Balla di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool te yéene bii nga xam ne maanaam moom la yéene liggéeyal maamam mu defee ko lu kaay njortam euh, barkeb sëñ Fallou euh, jërëjëf sëñ Malick defe naa kàddu yi am na solo lool kàddu yi am na solo euh, ñu ñëw fekk la ci mbir nga yëngu ci mbirum kafe ñu bëgg xam rek si diggante ak café waaw jërë ngeen jëf yàgg posé waaye saa suñu ko posé day doon loo xam ne lu ñu neex la ndax wax nañ ni maanaam day neex a nettali roi des arènes day neex a nettali ay jaar jaar yi dañ siy bëgg lool lool wax ne ma toogal loolu nag di ndigal

na sax ngëm ngëm xam ni xëcc la bu bu dagul dikk waaw voilà jërëjëf bu dagul dikk rawati nag ñu lu nga gi am bëgg du ma taay di ko tudd ndax maanaam daf ñoo dimbalee nu ne daf may sëñ Karim daf ñoo mës a wax nañu dee leen dee leen dee leen dee leen sax ay yàlla nga yàlla yu bari sëñ du Karim Mbàkke mu sëñ Faalu nee na mhm. da ngay jékki-jékki rek gis nit am mhm. ñii ne da ko sàcc mhm. ñii de da ko lëbëj ñii mhm. de da ko triande mhm. waaye sëñ Abdou Karim Mbacke mi sëñ Fall nee na dara may ko tulul may ko ko ludul yàlla nga yàlla nee nag ay yàlla nga yàlla mhm. day mel ni ay sànni yu bari nee na benn rek mooy jékki-jékki rek daal taw gi nag sëñ gala si ndindi moo ñu si defal moo ñu si defal maanaam moo moo ñu fekk suñu suñu tàmbali mu doyoon waar lool muah wax waxu mag ne ma li, nga tàmbali lii na nga fekk ma ma ma ma ma ma ma ma ma maanaam nit nit nit daje woon ma gis ko warmal ko xàmmee ko ne nga kat bu ba nañu yow ñu man maa sëñ bi xàmmee nga mhm. ma war ka ma bàkk ma def yi fa murit yëkkati la ma yaram jox ko di nga teral nga ma mhm. di nga xam ngi dem maa ngi ñëwaat waaye bu mu ñëwaat di nga xam ne sëñ Fallu mhm. bu ñu si si si ñaari yoon bi xam naa ne sëñ Fallu maam maakam ah, yëg ngeen ne daal yëg ngeen ne sëñ Fallu ba mu ñëwal boppam yëg naa ne sëñ Fallu boo ñëwal boppam dëgg dëgg sëñ Fallu moo ñëwal boppam guddi googu lu mhm. jóge si barab ñu ñu ñu maanaam guddi gi ñu gis mu sol benn laxasaay boo xam ne njaxas la waaye mu jékki-jékki mhm. dal Abdou Karim jékki moom di ko nettali am ba tey jékki ñëwee si barab bi dama laa génn mhm. waaye di sëñ bu tàpp man ma sëñ Maari ma ne ko man da ngaa rek rek di gis waaye damay sëñ du këri Mbàkke bu sotti may moom mooy man wala makaari ba nga xam mu defal ñu ci taw ba tey rabbil alamin ñoo ngi sant ñoo ngi sant bu baax a baax a ci waaw allah la wax ci li nga ci ci ci gi mais ci dañuy dugg ci segg bi Sénégal ci ñenn ñi jullit bëri na ñenn ñi seen pexe ñu koy ñu koy saaf dañ koy boole foofu bi ñu ngi leen koy boole ceeb yow nag nga yëngu eh, ci mbirum café bu ñu toll ñu wax ci li nga xam ne moom mooy eh, secret yi nekk ci foog ma laaj la ndaka nga ko kàddu yooyu boo ko déggee xam ma mas na ko dégg ñu soo ko dégg mais ndaka nga ko nga limal la question bi wala ndaka nga ko dégg ko dégg ah loolu hmm. ay dégg dégg rek lañ ci am hmm. liy waral li ñu naan pire. waaw yéen ñi jàng nasaraan naturel. Mm-hmm. ni xam ne ni ñuy defaree café mooy café doom. Mm-hmm. Mm-hmm. moom la jël raxas ko ba mu set weer ko ni ñuy weeree gerte caaw. boo noppee boole ko jar. yow iya, bu sama seen ba ñu wala ñu ñu saaf ko noppi wala la mu génn ñu loolu lañ xam mooy café doo leneen lu nah, si doon lekk du café wax naa la léegi ne la maa ngi ko tàmbalee si ñaar téeméer kon loolu mooy xaaju gën waa li gën la 10 pour ko du waxee loolu kon am nañ ci xam fuñ ko teg si wàllum sell si sellal sellal moo tax mooy am na secret bu ci nekk ci biir ah secret gi mhm. mooy li ma la wax rek yàlla nga yàlla bu nangu mhm. yàlla yàlla bu la mhm. mooy gis kii dafa war a warmal ko warmal googu ñu am si taw feexu suñu borom sëriñ bi defal sëriñ bi bu bu bu bu weesoo loolu nag moom barab li ko yor ak barab bu mënoon loolu it dama ci soñaat maanaam képp koo xam ne mbokk commerçant la mhm. place mhm. si li nga xam ne suñu borom dogal na ñu jot ko see seetlu mhm. mooy set ak civilisé ba noppi li ngay def nga bëgg ko barab nakate barab barab ak njaay bu mu mën a doon nekk taaral bi sax da doxal jékki-jékki jël sa barab yokku ko loolu duy doxal maanaam loolu ax bu fekkee amoo kenn koo xam ne maanaam ko jël mu nekk si barab ba dafa waaree fexeel nga toogal fa sa bopp am solo loolee bokk si barab loo luy doxal barab lay doon maanaam njëkk gi nag mooy nga bëggal ko sa bopp fexeel yi nga bëgg ko te di fexe muy bañ di tëj mu am yu bari yoo xam ne mu mel ni école mhm. fekk nga tàbb si doo ko waaye boo tàbbee rek mhm. maanaam loolu day solu mhm. da ngay dem ba tàmbali di di tàmbali di si am ak xam-xam lenn lu ne nga di ko seetlu lenn lu ne nga di ko seetlu waaye nga xam ne nekk lii lii mooy njëriñ dëgg la téere ubbi gëm ni man damay jaay léeg-léeg nga ñàkk jàppandi am feneen foo fenn foo demoon mhm. nga dem ba booru takku takkusaan passé mhm. déedéet bul tëj mhm. boobu sax moo gën a doy waar ubbi bu ndaw tijji bu ndaw boobu <laughs> diggante bu ndaw boobu <laughs> moo gën a yéeme ci moo gën a yéeme ci njaay bi quoi moo gën a doy waar ci njaay maanaam bul neenal bul neenal jur war naa donte benn waxtu dama ubbi ka nga xool kon suñu borom gën a doyee waar yu la am solo Amana si diggante diggante trente minutes boobu mbaa diggante une ta temps boobu mën nga fa jaay lo xam ne mën nga ubbi fajar ba geewee ta doo ko jaay loolu it na si ñu ci seetlu ak yaatal barab biñ la wax ak manam sa su ne barab bi di set am amna solo loolee bokku na si liñ seetlu si lo xam uh-huh. uh-huh. ah, uh-huh. man ñu doxal barab respect, ak respecté client yi man dama kay wax sa su nekk man dama nan sama client rek la am maanaam client bi dafa am benn mbokk taal bi ku baax ki a bamb ku baax ndeysaan ndeysaan ah, maa ngi koy ñaanal yàlla nga saa borom taw fii xel njabootam ma ci siñ bal dama dama gis seetlu ne mhm. nekk waaye ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooñ nga wax sax amaana waxtu laa leen di gis mbaa ñaari waxtu buñ demee dem nañ mhm. waaye sama client yi nga xam ne ma xëy fajar gi laa leen gis mhm. ba bi may tëjee sama barab amul kenn ku si mës wax ma wax maanaam ñu ñaaroo ñaar ñu ñaaroo ñaaroo baat nga wax ma wax musta am fexe respecté client bi nga nekk bi ngay jaay loolu luy doxal barab la ndax nit ñi fi mu ne kafe gi lu mu neex neex neex neex neex neex nit ñi am nañ fulla am nañ fay te seen xaalis rek lañ yor seen ñu am fulla lañ mhm. balaa nga ko xool nga ñàkkoon ko suukar bu avancé fee day ëññeeku ne la kafe gi suukaroo ko bu seddoon mbuy day ñëw ne la jiw de ñëw nga ne ko mbàkke ne la kafe gi suuk suukaroo ko ñun nag ñu loolu am na solo lu am solo ci ci liggéey bi lu am solo si liggéey bi mooy respecté client yi wallahi la aussi ñoom comme ni ko gars yi di waxee ay roi lañ client les rois client yi maanaam melal ne si ñoom sax wax borom këram wallahi du ñàkk fayda daan dooleel rek du ñàkk fayda mel na ni sëriñ ak ak ak taalibeem du ñàkk fayda te léeg-léeg nga man bëri na samay clients yoo xam ne si si seetlu gi rek maanaam nekk gi si nekk seet seet seetlu gi rek dem nañ ba nekkutuñ sax maanaam nekkatul loo xam ne ñun ndax njaay la jërëjëf xam na leen lu ci dem nañ ba séq loo xam ne romb na ñun ñun ndax njaay yàlla mi tam mm-hmm. mooy nga xewlu ñu ñëw mm-hmm. nga am dara ñu taxawu la kon nekk de doomu aadama mu tàmbalee foofu si mbindax jaay mu tàmbalee foofu loolu est-ce que du day day day bokk ci li Sëriñ Tuubaa naan wad xiire naa wal kabir waaw waaw mooy makaari ma yi mooy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ mhm. li ma waxoon benn journal wax naa ko benn bi nga ko def mhm. ma ne bi ñu sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou jëlee sang ñu ba mhm. moo ñu solal yére parfum ñooy parfum yi def wala am classe mu am mu nit ñi nañ ko bàyyi xel te koy déglu am solo dafay dem mu di leen ñaanal ndax makaarima axlaa googu maanaam maanaam mooy njëriñ mhm. laahi dañ doon jamono joo xam ne dara jëriñëw lu dul makaarima axlaa laahi man bañ rafet bañ naa ma tax gi noonu laa mhm. moo tax moo moo tax mu mu moo tax mu murite moo tax <laughs> boo ko naanee rek da ngay da ngay daal di ñëwaat da ngay daal di ñëwaat ah, leen ah. na may ko nag lu dul axlaa mooy jikko jërëf mhm, dëgg la ndekete jikko ju rafet bi day feeñ ba si jaay bi bi maanaam jaay bi ñu koy jaay jikko ju rafet mm-hmm. dëgg la nit ñi di la tàmbali di la bëgg di bëggal yow yow la nga yor te bu jikko ju rafet bu jikko ju rafetee wallaahi bu neexul fee ñu jël jël si ko mm-hmm. wallaahi la leen fay tey mooy jikko jikko mm-hmm. mooy nit mooy doomu aadama mooy nit mooy nit dëgg la muy la am solo sëñ <laughs> ak saa sëñ Malick defe naa kàddu yi am na solo lool mais ba tey rek dañuy ñëwaat tuuti dañuy arrêté waat tuuti rek ci sa début bi lañuy la ñuy arrêté waat tuuti ci début njaay mi mais bi nga commencé yi jur uh-huh. bi nga commencé 1000 yi c'est que café gi génn ci kër gi war a jaay uh-huh. ndax la yëg ndax début njaay mu nekk ak jour ak kan moo lay xalaatal ne dugal ci café ak lan moo war nga dugg ci café bi taw feexu sëriñ bi rek ak mbaaxam mm-hmm. nak daanaka nak sa koy faral dewa wax tàmbale ñu woon si café touba ay yëre daan lañ wa woon waaye dañ dëkkoon tëngéej ñëw zang baaw bis bi ala sa ko ni ñibbi tëngéej di ñëw zang baaw ñu ne donte ñaar téeméer la donte donte donte donte duñ passé la di dinañ ko wàccee kon xaw ñu tàmbali café café touba boo ko tàmbali di nga am wecc ñu tàmbali ñaar téeméer comme di nga waxee ni xam nga ñaar téeméer di si dund day na wa torop na metti na yéeme la mais euh, barkeel li moo gën bari la. waaw. comme ni ma la ko waxee léegi. Uh-huh. suukar ñaata mi nga jëlee suukar 300. 300 350. mu mat ci 1000 francs yi mu mat ci 1000 francs yi uh-huh. waaye ñàkk doole sax. daanaka tax bi jeex gaz bu doole la du 500 waaye foofu chargé ko faaw def ci semaine. <laughs> dajale dajale fukk fukk 100 yi pour pour mën koo chargé. pour pour mën ko chargé. Uh-huh. pour pour nga ñaar téeméer nga jaay ko ba noppi war see dund daal. dara gënu koo metti. gëm-gëm rek am solo. dëgg ma ma ma ñu ñu ñu tàmbalee si. Mhm. waaye. Mhm. di di di di dund jikko sëñ Abdou Karim Mbacke Moussa Fall. parce que sëñ Abdou Karim mhm. fu ngeen mën dem di sàkku. na ngeen a sàkku na leen ñor. xam nga di di di jël ñàkk bi di sàgg pare bëgg bëgg xewloo ginnaaw. déedéet loolu moom mooy daane sa bopp. da ngay da ngay fàgg la méngóog loolu nga di ko dundee nit tamit mënta ñàkk mën mënta ñàkk lu mu dundee fam ne. loolu dëgg la. nga xam néewali bëgg-bëgg. néewali bëgg bëgg-bëgg. pour li nga am mu di tàmbali di def nànk-nànk. di dajal nànk-nànk di def ba tey alhamdulilahi rabbil alamin bu ñuy dem di jëndi café ay millions la ñuy da jëndi café di ñëwaat Mouhamad Fall mhm. xam ne lépp waaye si si ay tartar mhm. si ay métti mhm. la jaar see dugari Mbàkke mu sëñ Fall fu ñaa wax nañu doomu aadama boo demee ba ne man sama muñukaay fii la yam sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ Fall ne xamoo luy muñ li mhm. sëñ Karim nee na muñ ba faaw la rek waaw ñu ñu gëmoon lool mhm. gëm ni muñ ba faaw la mhm. muy lam solo ñii muñ rek nekk si ba tey alhamdulilahi rabil alamin waaw ba tey alhamdulilahi rabil alamin yàlla yàlla euh, xeeb dolli mais bëtul bëtul ngay suba gi parce que defe nan ñu bari ñu ngi commencé seen ci fajar gi defe naa di ngeen yeewu pour mën segg café bi ngeen mën a jaay joxe yi ban yeewu ak nga mën a segg café gi pour ñi nga xam ne suba gi dañ fiy jaar waaw waaw maa rek nag suñu fii xal na ko mënatul naan day xëy segg ba noppi jaay di def mhm. la muy segg si guddi gi la koy segg mhm. def si yam yam yam yam sa war a def mhm. bàyyi ko mu fajar gi moom moom may tàngal seggee maanaam damay segg bëri ko café kilo comme 10 kilos comme ni ma ko waxee nga 10 kilos mënoo xëy naan da ngay segg fan nga jaay ko déedéet timis laa koy tàmbalee ngeewe vingt une heures daanaka lay doog a far waaye tamit dafa barkeel uh-huh. si si bërigo bi am na loo oyof loo xam ne moom lañ koy muuree uh-huh. ak sa lu set te civilisé yi uh-huh. bu ñu xëyee fekk mu mel na mu war a mel ñu jéeri ko jël ko tàngal jaay tàngal jaay bi. lu mhm. damay ñëw rek fekk mat ma déedéet. damay mel ni kuy omelette damay tànk. <laughs> sëñ Malick loolu loolu loolu xorom loolu xorom uh-huh, uh-huh. uh-huh. na ne sëñ Malick lu barkeel mel noonu lu barkeel mel noonu lu barkeel ak sa murid màggal nañ leen de murid jaay ne a Malick sëñ Malick loolu waaw waaw da ngay mel ni ku koy da ngay mel ni ku omelette da ngay da ngay tànqalu ndaw ndax <laughs> boo tegee lu bari lu barkeel moo mel noonu dëgg saa du du du du ay deux minutes nga xam ne déedéet <laughs> léeg-léeg sax damay ñëw fekk ñuy xaar wunu Sëriñ Fall lu ma yeewu yeewu lu ma teel a teel a yeewu mm-hmm. loolu nag barkeel la kaas lay tànq rek mm-hmm. rek sotti ñu mm-hmm. mel ni noonu nga ne mel ni <laughs> ko am leen ba bàyyi ba bàyyi daal <laughs> ba bàyyi tànq benn kaas xeet jox ki taxaw nga lu mel noonu lépp ngir bëgg ñu barkeelu yi nga xam ne dama dem ba am si yërmande fi mu ne bu ma tëjoon sax giñ naa ko sëñ Fallou dox diir bu gàtt mu ni ne jëriñ kafe laa bëgg damay ubbiwaat jaay ko du xaalis waaye moom dama xam xama fu dafa am benn jëm jëmm joo xam ne njëkkeelu fan bi dafa événement bu xewoon njëkkeelu fan bi ginnaaw événement bi ma pause

moo moo waral léeg-léeg mu tëj tëj wàccee sax dox diir bu gàtt ah mu ubbiwaat lépp la nga xam a footoon nekk yi fi day dem yërmande loolu lépp day ci borom ci makaarimal axlaaq day day day day day day mooy jëriñ ñu jëriñ makaarimal axlaaq rek a jëriñ makaarimal axlaaq xam ne lu ñor suñu gën a si diine la ma waa Malick nag moom benn dosage rek mooy dosage bi ma leer dosage boobu ndax ñun loolu amaana maanaam mënatuñ ko dëgg la xam a bañ ko waaye lépp dafa dafa tënk si barkeel gi rek saas nekk am solo ci barkeel te dama jàpp ne seen dukkari mbàkk sëñ Fall ne yàlla nga yàlla bu nangu la yàlla nga yàlla yàlla nga yàlla bu la moo tax moo tax jàppe ko rëy te it wax dëgg na yàlla dem naa ba seetlu ne client yi bëgg nañ lii moo tax moom wëyal ko ma dem ba am benn dose boo xam ne fii laa ko yemal xam ne ñii nañ ko suba gi te nañ ko ngoon gi déranger wu leen guddi gi ma wëyale ko kon loolu daa mel ni ci gën dem gën ci am expérience nga liggéey nga siy gën a xam loo siy gën def gën xam nga xam ne nga da nga dem ba ràññee sa client bi benn bu ne sa client nga defam koy at kii digg kaas lay naan kii kaasam du àgg sa digg kii kaasam lay naan kenn ku nekk affaire yi kii naan digg kaas moom li waral muy naan digg kaas moom moom chaque instant day ñëwaat. dama koy xool sama bopp rek comme maa la man bu may naan café damay dama ko fees ak dara dama koy mës digg boobu laa amee envie naan dama koy xool sama la. man damay uh-huh. fuurit man lan mooy secret ci karim am lan mooy secret bi secret parce que daa am secret de café ku am furir gi gars yi yi nga xam ne yéen a ngi dem Touba ah, wala yéen ñi nga bu ngeen di jox murid yi café gi di leen jox xoolal di leen ko defal ba mu fuur ndax si bi am na secret ci nekk baaxee leen loolu ci ci màggal ci safar gi ci nekk ah. lan mooy secret bi euh, loolu mooy normal normal na bu ñu waaye café bu normal boo ko boo ko am boo ko loolu ñu jàngat la loo am solo loolu ci jàngat la am solo la sama suukar bëgguma man ñooy ñaare kafe bëgguma suukar sëg bëgguma déedéet man yoo sama sax nu ma ko gën a man moo gën wóob moo ko gën a moo ko gën bëgg rafet xam ne lu ñuy naan saf nam saful ma sama franc bi laa jël maa ngi ko feesal si digg day tàngi jël am fuurit en tout cas day tàngi jël am fuurit demee naa fuurit nag yi jiya parce que def naa saa yu may si rek yow ne ma ne ma waxtu li ci des bëreetul en tout cas si maa ngi la wala moom lañ seet si woon fii vraiment macha allah maa ngi maa ngi leen di sant gërëm ndax def naa kàddu yi am na solo lool te vraiment yàlla na suñ tubaab teel boppam amiin xam naa ne moom ñàkkul ñoo xam ne di ngi leen sant gërëm leen ak Baye Fall yi xam ne ñu ngi naan ci café gërëm ñu may waaw bu weesoo ñu maa ngi leen sant dir gërëm mënu maa lim ñi nga xam ne maanaam ñoo jox wàllum transport bis yeex eh, camion yeex taximaan yi ñi war a wàllum transport yëpp ak moson yeex ñëpp ndeysaan yàlla xam na ko sa yéer yeex mënu ma lim fu mu nekk dëgg la bu nekk Boucher day ñëw day ñëw. muy ñëw mu nawet ñëw. muy ñu nawet muy guddi ñuy ñëw. muy fajar ñu ñëw. ñu ñëw. loolu ñu jàpp ne yàlla yàlla du nangu la rek. la. ñu jàpp ne lii yàlla nga yàlla du nangu la. yàlla yàlla barkeel. li may soññee nag bu koy soññee si ndaw yi. rek. la am na ಕೆಲಪುಲೆ ಕತಲ್ ಗಮ ಕಲ್ಲ ಬಕಂ dafañ kenn daf ñoo waxoon nañu bëri na si nit ñi ñu leen wax seen intérêt bopp képp lañ leen wax mu ne bu si yeewul du fa xasa bopp kon ndaw ñi nañ bàyyi jotaay yi te fexe uti ji liggéey ñu bañ a dépendre si kenn bañ a baanewu si na nga sa nga jëriñ sa bopp te jëriñ nit ñi. lu am solo. ko lu am solo lu dul njëriñ. kon mhm. war nga fexe noo jëriñee sa bopp ba pare jëriñ nit ñi. c'est solo. nit ki war a jëriñ. te mhm. la maye ko lu dul liggéey. Mhm. mooy la mayewul. dara. client mayewul sàcc mayewul. client mayewul sàcc mayewul. man de wallaahi ne sàcceeg laa xeeb. parce foofu ngeen fi tuuti ñaari minutes wala benn minute rek. ci nga xam ne defe naa màggal gi ñëw. bëri na ñu xam ne dañuy dem pour alali jàmbur ñooñu yéen ñi nga xam ne yéen ngi dem Touba te alali jàmbur kese moo leen tax a jóg lan ngay wax ak ñoom non parce que li ma wax ne dafa am ñoo xam ne dañuy paas pour dem Touba pour alali jàmbur loolu kese moo leen di yóbbu pour sàcc xanaa xamoo suñ doodu boo liggéey salal da lay doy sëkk ku ñàkk liggéey la rek bëri na yu ndaw di dugg ñàkk liggéey la rek boo liggéeyee rek tënku waaw boo liggéeyee rek tënku loolu mhm. mhm. am na solo bëri na lu ndaw di dugg moo xam sàcc moo xam agressé maanaam boo ñàkkee liggéey rek ngay am jox ngay def yenn yi mais liggéey rek day defar nit ci lay respecté ni liggéey rek ci maye. Mhm. lu am solo. sëñ Abdou Karim Mbacke moom sëñ ko nañu. sama kër gi ñàkk bu ñuul moo fi maye dara. Mhm. liggéey rek am solo. liggéey jaamu yàlla. Mhm. boo liggéeyee rek jariñu. wallaahi. yooyu wallaahi doo ko tal da ngay xeeb da ngay xeeb alalu jàmbur. liggéey ñaq ñaq jariñu. boo liggéey noonu. da ngay xeeb alalu jàmbur. c'est ça. kon yëfi liggéey la. ndaw ñi nañ jógaat. te dimbaliwaat seen bopp mhm. bési gaaw na weere gaaw na ate gaaw na mhm. rek yëfi romb la li mhm. nit mën liggéey fii si réew mi ngir jëriñ boppam bari na buñ toog da yaafuus yaafuus baaxul na solo doon di jëriñ suñu jëriñ nit ñi ngi mbokku yi barab bi ma limee damay jum ñuy ay eh, jambar dama leen koy wax sa su nek ñuy ñoom ñàkk ñu fa jëm dëgg la ñu yor seen i liggéey bopp la ñu tok sama yëpp kenn ku si nekk sa métier bopp nga yoré ndaysan muy lo am solo kenn ku ne da ngay liggéey ba wacc dubbu muy lo am solo ay borom baax lañ te kenn nit ñàkku si ñàkku mu jëm waaye dañuy ñëw fii di waxtaanee sëriñ bi di dund makaarimal axlaaq ndeysaan di koy rafet rek mooy nit maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp amiin yàlla leen saa borom tawfiixal barkeel seen i liggéey barkeel seen njaboot barkeel seen Mouhamad Fadel Mbacke maa ngi sant maa ngi ñaanal ak sëñ Mountakha Mbacke di ko ñaanal saa borom Mbacke te wëral ay këram barkeel sëñ Fallou di ñaanal sëñ Abdou Karim Seera Fall noonu lañ koy ñaanalee sama sëriñ. Mhm. sama lépp sëriñ Galas Ndéni. sëriñ Galas nga xam ne moom. kay foog ñu seeti ko sax sëriñ Galas moom xam naa ne sëriñ Galas Ndéni. foog ñu ànd ak yow dem fa seeti ko ndax ma ngi. wallaay xam naa ne màggal gi après màggal gi ndax lépp dañuy xaw a. wallaay après màggal gi dañ fa dem seeti ko incha allah. maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm. di ko ñaanal yéene bii bu yéene yéene bi am si mam mhm. dafay ko lu kawe njortam barke Seexna Ahmadul Xadim mhm. yàlla ka saa ba lépp lu muy indi sëñ Fallou mu defal ko ko barke Cheikh Mouhamad Fadal lépp lu muy indi sëñ Abdou Karim mu defal ko ko barke Cheikh na Rahmadoul Khadim mooy sunu yaakaar mhm. tey ëllëg mooy sunu sëriñ mhm. mooy sunu lépp ñoo ngi ñaanalit sunu wayjur mhm. bi nga xam ne maanaam dafa bàyyee ko mu wajib wajur bu góor sa borom tawfiqal tawfiqal ko ba fam nek sa allahumma ngir ñi nga xamne maam mom lañuy to fekk fa allahumma sunu wajib bu jigen bi fi ne yalla ko sa borom tawfiqal bay yene giñ am ci ñu defal ko barke seen xamne amadou dal khadim yene télévision ma ngi leen ñaanal sayika yaana leen sa borom tawfiqal amin amin amin fi ñi dégg téré magi ñu fa barke la ilaha illallah muhammadur rasulullah barke borom tuba allahumma barke ñaan gi nga xamne maam na seen mu señ fallu ñaan waxtaanee tàmbale ki sëñ Modou Moustapha ba sëñ Saliou alaaji baara falilu seen barke ñoom ñëpp ak gaa baax amiin barke euh, allah kooku mooy Malick moom lañ seet si woon fii nga xam ne moom mooy sag mbaaw ah, kafe gi rek nee makaarimal axlaaq la ko tuddee muy jikko rafet defe naa loolu am na solo bu baax a baax a baax ñu ngi leen di bëggee te leen màggal bu baax a baax di bëggee soos Ndiaye ca diwaanu nga lambaay ah, soxor si soo maa ngi koy bëggee bu baax a Ah, di ñëw ñëw yu naas xam naa ne jamono ji yéen ngi waajal li nga xam ne moom mooy màggal gi mais incha allah dinañ ànd ak loo xam ne war ngeen ko am wala lépp loo war ngeen ko danañ ko jëlee ca Touba ci image yi incha allah dinañ leen ko jox di bëgg waat waa diwaanu Mekhe Lambaye bu baax a baax maa ngi leen di màggal di màggal ñëpp ah, waa kër Serigne Mbaye Thiergane maa ngi leen di nuyu di leen màggal yàlla nu yàlla defal ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm màggal ko comme màggal yi ñu ko doon màggali mu dàq màggal gi ndax màggal gi moom naa moom Euh, màggal la goo xam ne day gën a dàq ndax murid yi moom chaque année dañuy xaal loolu Sëñ Tuubaa moo leen ko defal en tout cas daal yàlla nu Sëñ Tuubaa téel boppam ah bi moom mooy sëñ bi waaw yàlla nu téel boppam yàlla nu boppam waaw ñi nga xam ne nag ñi ngi ci leneen yàlla leen sëñ bi xëcc ñu ñëw ndax sëñ bi moom boo ci nekkee xam ne yaa ngi ci sëñ bi waaw jërëjëf ñu ngi leen di màggal bu baax bëgg ak ndam ak